te nemmeeku yenn ci contestation ci résultat yi nga xamni ku ci nekk gissal nga ko sa bop ku ci nekk également voilà xam nga mbir yi ni mu dal di demee jamono yi ñu toll. xalifa gannaaw bi ma la nuyuwaatee nuyu Hadj Mansour nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy suñu internet yi ñuy topp ci Al Irshad TV di leen ndokkeel bu baax a baax euh, maam xalifa ci suba si ci altine ji waaye it euh, li nga wax édito bi dafa ñëwati ci waxtoom ñëwati ànd ak mbégte mbégte moo xam ne bëgguñu dara la lu koy xajamal ndax askan wi xalifa dañ liñ doon xaar boobaak léegi te agsi ci dama naan nag candidat yi doon dem ci jongante ji investir ci seen temps investir ci seen xaalis doon contester di manifester suba ngoon ni nañ leen jàppal dat bu ñu àggee ñi ëpp ci ñoom. ñu dem ci ay élections ñu gañe leen ñu nangu félicité kenn ci seen biir koo xam ne ñoom njott nañ ni kat diw mii moom moo ñu devancé damay jàpp ne yow nga nekk kenn ci seen biir malgré yow kenn nga gis ci seen biir mais yow ni nga néewee doole ci biir election bi noonu nga néewee doole ci biir coalition bi nga xam ne ñoo la ngemboon. ba waral ñu bari ci seen biir euh, génn war nga mën a am benn certitude ak euh, nangu goo xam ne ak honnêteté goo xamante ni di nga xam ni ay la kii. sama naataango la dañ doon jàmmaarloo raw na ma jël na raw gàddu gi nañu tourner passe bi nekk ci leneen mu gouverner ñun ñu dem bu ñu amee ambition ñu continuer politique dem opposé wu ji bu ñu fi mhm. bëggee jaare bàyyi politique ñu dem xooli leneen loolu nag Khalifa la ñuy xaar jamono ji parce que Sénégal dafa upp beneen ngelaw la soxla woon pour mu upp ngelaw changement upp na changement boobu nag dañoo soxla ngir génn ci coono jafe-jafe contentieux politique yi ñu daan dund tiraillement bi yooyu yëpp dañoo bëgg a tourner page boobu teg leen nële te jublu ci page liggéey génne Sénégalais yi ci jafe-jafe liñ koy xamal daal mooy ay la yéwén suñu décortiquer kàddu yi moom ki ko tànn gannaaw ba mu votee di président Macky Sall la mu xam leen ne xalifa ak na mu ko waxee loolu ñëpp moom lañ gis muy. élection Sénégal li ñu miin mooy bu ñu voté ba pare. Mm-hmm. dañuy taf PV yi ci bureau de vote yi journalistes yi tàmbalee joxe ay résultats loolu nag moo am tendance yooyu nag saa su rotee da ngay gis ni euh, ni muy demee léeg mu am ci ku muy favorable sagam président de la république président Macky Sall moo ko junj wax ko situation boobu la dund Amadou na nangu. Mm-hmm. na nangu ak ñi mu àndal bu ko kenn pousse ci loo xamante nii xëy na li ñuy faral di wax rek euh, kersa gu gàtt moo gën kersa gu gudd pour ñu mën a rafetal kàddu gi. Mm-hmm. voilà justement mu ngi doon ajma sur euh, contestation yi nga xam ne amul benn assurance